affaire non violence bi ñu non violence qui a commencé prison Nous avons commencé à lan tey jii dama lay laaj nit nous sàcc deux ans nous am ay phobie ci àdduna ak xaalis bu bëri def devons neex mu Nous un an ñu Nous ko ana loi ana doole kiy sàcc ginaar ak ki sàcc milliard kan moo ëpp lim sàcc ki sàcc ginaar kenn nit la sàcc mhm. kim sàcc mun na ko baal mais ki sàcc xaalisu mbooloo toog ci di def lu ko neex loolu nañ si bàyyi xel prison juge yi ngeen bàyyi xel xam na yàlla moo leen bind nit du ñëw taxaw fekk wo yëgoo tinoo police am ak moom problème charge dossier am def lu ko neex ci àdduna bi ñëw jox la ko jébbal la ko yow nga xool ci ay këyit tëj ko boo ko defee sa njàng des na sa diina des na sa wilaya des na prison li fa nekk bëri na Macky Sall yow la ñuy jiital ci wax ji waxuñu ko kenn yow yaay président yow yaa yor njëgal ndax yow la ko yàlla jox ñëpp dañ koy nangu ñu nekk ci prison yi lii ma lay wax ginnaaw ko ci baaxu Serigne Mbacke soxna loo moo am coono am na fa corona yéen a waxoon am na yow président nga tëj frontière yëpp corona jeex na ci réew mi làmb jaa ngi tëgg soire yaa ngi tëgg léegi ñu nekk prison ñu ne corona dafa am ba léegi un ñu arrêté seeni lekk ak seen i visite samedi ak dimanche lañ am repa bu ñuy lekk te seen mbokk moo leen koy indil te la nga xamante ni directeur bi lañ koy jox mënu koo yore prison bi parce que kaso buy def ay mille cinq cent personnes soo bëggee sóor ñetti cinu mbana yu mag wala quatre cin bëgg leen ko seddale kon foofu loolu baaxul du lekk gu baax day metti loolu na ci état bàyyi xel xam ne ñooñu ay doomu réew mi lañ ñooñu ci réew mi lañ dëkk nañ leen bàyyi xel ñoom ñi fa nekk yëpp nag maa ngi leen di ñaanal nañu muñ grève bi amul sens ñun li ñuy xeex ñu ngi koy xeex lan mooy problème bi lu ko jàllale ba ñu jiite réew mi xam ko te loolu ñëpp danañ ko xam te yéen ay journaliste ngeen seen télé bi giñ ko ci baaxu Serafal yàlla dana ko yëkkati lii ñu fa waxit ñun duñu fen képp ku ñu woo suba ñu ñëw dawuñu njoogu bajaan laa tudd àdduna yëpp ma xam man téere la parce que lu ma dund la nañ bàyyi xel ci ñooñu xam ne ay doomu jàmbur lañ ay nit a nga fay feebar kenn mun leen a faj ay nit ñu ngi leen tëj ay perpète yoo kenn sax la ñuy jàpp mu am problème boole ci ñeneen keneen ki ñëw nekk ci natt boobu ñooñu def ay vingt ans jeel mais vingt ans kaso nan la ko nit di defee xëy na cité turu jàmbur baaxul mais mën naa cité cinq personnes yoo xam ne ku si nekk def nga vingt ans am si ñoo xam ne seen fee amul crime te nit def na lu gën a garaaw ñu bàyyi ko mu nekkaat ci dëkk bi léegi nag loolu ana àdduna ana Sénégal ana justice gestu leen seen bopp yéen justice bi xam ne yàlla moo leen fi teg seen njàng moo leen ko may ñëpp nangul leen ko waaye njàng su la ko yàlla mayee ba pare jiital la da ngay ànd ak sa xel lépp loo jugé police bi ici kenn du leen blâmer parce que police moo yor sécurité réew mi mais police dafa am mafia mafia bi mu am mooy man lépp lu ma wax barke alxuraan suba commissaire bu la neex convoqué damay ñëw dafa am mafia police yëmbal nag moo si raw loo xam ne dama ko dund buñ nee dileer yi ngi si biti di jaay te ñoom bu ñu jaayee ba pare bu leen ñoom bu leen jàppee ba pare retourne lijjantiwaat xaalis si ñoom ñoom ñu bàyyi leen léegi ana kon drogue nan lay dañe ci réew mi nañ leen waxante dëgg drogue nan lay dañe ci réew mi police yëmbal da koy jëf te ki koy jëf soo leen ma woosee ma wax leen turam ki koy def xam naa ko xam séeré pési bi xam lépp ñu koy def njoogu ngay waxal du ma koo xam ne nii damay wax ëllëg yow mal xiyaam ma tam sa kanamu yàlla di arrière du ma it koo koo xam ne damay wax nit taxaw ma arrière loolu na ci état bàyyi xel nañ ci bàyyi xel lu leer nag laa lay wax nii lu ma xam la lu ma dund la te fépp fu ñu ma woo ma wuy si leen ñi nekk ci prison yi ici ñu ngi leen di ñaanal yàlla wàj teggi nattu yi yàlla jële leen fa am na ñu fa yàgg sax am na ñu fa yàgg seen i njaboot sonn Ibrahima sàll yow it bul bàyyi ñu ngi lay dégg booy dañ lay gërëm li ngay génne loolu ñëpp xam nañ ko dëgg la malal ici ñu ngi koy ñaanal parce que booy chaque jour fu ñu mënta toog ñu ngi wax ay dem yu mu fay dem moog sëñ ay dara Mbàkke loolu nag man laa gëm yéen kilifa yi nekk ci réew mi bàyyi leen xel réew mi sarax jekk na ci réew mi sarax jox nit li moom jekk na ko mais sarax ngi prison képp comme looy dimbali toggal ay ñam jaar fa nga war a jaar ñu bàyyi la nga dugg loolu mooy état man loolu laa gëm. léegi yow suma dernier kàddu. mooy mhm. li may ñaan ndaw ñi man ndaw ñi laa koy ñaan parce que mag ñi jeexal nañ jeexal nañ maam moo fi nekkoon maam dem na. papa moo fi nekk papa dem na ñun ñoo fi nekk dañuy dem suñuy doom kon suñuy doom nañ leen bàyyi xel bàyyi xel bi mooy ku ci yor njaboot mhm. bu koo gedd waaw bu nekkee ci sareet yi yedd ko bu nekkee di def leneen yedd ko même boo ci mënul sax dama la gis centre yi wala nga dem ci maire yi am na maire yu baax ñu xool fenn fu ñu ko dugal état muy ministre bi muy ñëpp ku ci mën a tabax ay centre woo ay nit yoo xam ne xam nañ àdduna ñu former xale yi ci yar ay ginaar ak yeneen yoo xamante ni rek ëllëg dana amal njéew mi kanam quoi waaw njóogu njóogu njóogu foofu euh, ci li nga wax ci centre yi nga ne bu ñu gedd seen doom yi nañu wut ay centre yooyu yéen euh, comme yow mi njóogu ak ñoom euh, Pambay ah, seen seen équipe bi nii est-ce que am ngeen benn euh, ambition benn programme boo xam ne tey ëllëg di ngeen mën a defar benn structure benn centre boo xam ni comme ni nga wax ni xale yi nga xam ni xaw nañoo të seen waajur yi xamuñu nu leen di def yéen ñu ngeen ngeen euh, instauré leen fa euh, di leen dolli li nga xam ne baaxul ci ñoom ngeen jéem ko dindi daal. waaw waaw loolu. maa ngi ñu ngi ci parce que léeg-léeg ñu ànd xam nañ àdduna gis ay booy yu am safaan dañ leen di romb sax grand Ndiogou Père Mbaye ñu woo la ne la rakk de suñu sañoon doo def lii defee nii ak nii ak nii parce que ñaari yoon moo am yoonu mbaax ak yoonu mbon ci li ñu wax mbon te mbon amul parce que dama déglu Cheikh Modou Kara Nouré ni mu ne nit ku bon amul parce que waaw mënoo bëgg yàlla bëgg yenente bi bëgg rasulullah yaakaar suñ tubaab mi yaakaar jaam ñi di bon mais nag ak caay-caay moo lay jàpp caay-caay gi mbubb la saa yoo ko simmee rek mu deñ léegi ñun loolu chaque jour ñi ngi ci parce que duñ si xaar état wala keneen ku am doole waaw yàlla lim ñuy baaxee chaque jour bu ñu gisee ndaw buy jaar si yoon danañ ko yedd même yëre sax bu ma ko solee gis ndaw luy dëng mu laaj ma ko dinaa ko jox te du daw ndaw parce que ki baax yàlla baaxal na ko sëriñ mënul si moom dara kenn mënul si moom dara mais ki nga xam ne ne dafa jaar beneen yoon nga jëm koo wàññi ba teg ko si place mu mën a dimbali mbokkam loolu mooy àdduna ñun nag xaaruñu si état mais bépp ministre bépp maire bu mën a tabax ay centre nga defar ko wut ay nit yu ko mën a yor ngir jëmmi yàlla te nit ñi bàyyi di ket di pour du yóbbu ci prison yi di di ko lekk loolu képp ku koy def rek boo dee yomal xiyaam da nga layoog moom na nit ñi moytu ak jàmbur na nit ñi moytu ñu xam ne réew mi metti na am na kilifa yoo xam ne nii tey jii ñi ngi yeewu amuñu dépasse te pourtant dañuy xëy génn noonu ak seen njaboot waaye léegi am na ñoo xam ne ñi ngi yor ay alal judul jeex tiim leen te mënuñoo génn asaka ana li wàcc illaahi ana yàlla lan la fi nekkeek jaam ñi nañ leen yërëmante nañ leen jéggalante yal nañu yàlla defal jàmm def ko ci réew mi ci barkeb Serigne Touba sama sang ba sëñ Mbacke soxna Lo yalla yàlla yokk ay leeram ci barke Cheikh Moudou Moustapha Mbacke jërëjëf barke Cheikh Ibra jërëjëf kontaan. Ah, sëñ Ndiogou ñu lay jaajëfal.